kaw kaw kaw kaw kaw Pathias kaw kaw Pathias say dem minoo di nga kaw man ngay kaw yow man ngay sacrifier kaw man ngay sacrifier kaw man lan mooy kaw tey bu ma bu ma la bu ma la réeréewut bu ma la man man nga réeré ma man bu ma la réeréewul bu ma la suppul tey xanaa yow dëmb la bu ma dee kaw yow yaa bon xanaa yow kaw yow yaa bon yaa yiis ah dangaa yow nduroog tamaate nga bëgguma def tamaate man ka leen la yow mën nga génne gaal ay <laughs> waay sama sëriñ na ko yëg ndeel voilà ala ndeel ndeela haal dey haal dey tappa patas haal dey patas mi annda ñammi wakal patas mbaay fekka nama maay seesi depuis i patas mbaay i xam mi ngi may tooñal ma mi ngi may tooñal ma mais fekk ma ma nelaw mu xëcce sama tànk yi. ma ma yow yow yow yow yow yow yow kii moo man a rambaaje kii moo mën a jaxase kër nee la yow kii man a moom noonu daje léegi kii damaa daje moom may gàddu sama saak di dem ndekete ndeelaa ngi nii yaa ngi nii. ndee la kaala ngi nii ma man gis nga damaa sa bagage rek dafa diis yaa ngi dégg yàlla li nga def nan nga li nga def xamoo ko. lan laa def fekk sama nijaay mu toog nga yëkkati xaalis dem jox ko ne maa ko pour mu ñibbi. wala ma yoo pare naa Sénégal njaay. man moom bàyyi adduna man. kaw laa yow Pataas Mbaay ak yàlla naa ko mëkk suuf. Eh, bu fekkee man fii ma teddoon ci suba boo léegi gis naa Pataas Mbaay fii si kër bii man nga ne léegi laa doon wax ak kaaw. Eh, man ñii laa wax. kii nga jox famille mu. waaw yow damay na leen

doo soxlaa xaalis si sa sa sa say jarbaat la moom wol bii rafet na. kan jox ma famille day jox la day jox la xaalis lu mu lay rusal. waaw d'accord lu jar muy fenal ma. waaw d'accord am problème. ah ndee la kaw ne jox ma famille. ah ni hay dara waay ma doon mar. ndee teg sa loxo ku fen ni mbaas mbaas ki kaay leen teg leen teg leen mu leer ku fen. ñu mbaase mbaasal. mbaasal mbaasal. mbaas mbaasal eh, waxal fulle alaaji déglu leen ma waaye. ku fen ñu yëkkati maamam ba ca kaw ba biir ba weex ñu sakk bopp bi bu dee man la. jarul yëkkati sama maam wala ñu yëkkati sa maam dégg moom ku ko jégg day xam ko. sama maam bul ko. alaaji man déglu leen ma ma wax. Ah, waaw fee rek di dépassé sama maam kii la di la. dépassé pour lan muy mi ngi saare sama maam ngeen calme wu maa ngi wax ngeen déglu ma au moins ngeen xam sax lan laa yor. Ndéla yow yow Ndéla joxal joxal verdict joxal verdict bu mu gaaw. problème lan nga am. moom amul problème dara. problème xam nga lan la mooy mooy mooy. mooy sama rente bi ma doon rente naka kaw rente bi problème boobu laa am fi nit ñi. waaw man ban la mu amal. coow ngel mu coow naa kii mooy kii mooy banque boo soxlaa xaalis waxal mu mu jox la kaaw jëla. nee na nga def ko sa ku moom lii. jëlal nga def ko sa poche. ñun lii. léegi ñun jaaxal yow la jaaxal ngay teg pala ngay fen di peew pour bëgg xaalis cinquante mille la jël ko su jeexee def ma sëñ ma joxaat la abal rek yoo xam nga ne lii duñu boole bu dee lii rek kay a naa bañ a ñàkk problème man léegi damaa di koy faat loxo tam-tam damaa faat di koy faat loxo tam-tam waaw di ngeen xam ne man ak yéen la ale lii rek yow mu loon nga bëgg lan moo yow nga bëgg may jàppal sa famille kaaw jàppal sa famille man ko yaay bu ma tuubaal. alors de. dégg nga may may xaal. du ma ko may. muy may de may may. muy ma de. man soxlaawu ma sax. alors baax na. soxlaawu ma ci. du yow ma soxla damaa soxla sa man dee la lu ma soxla day jox ma. naa ne ñoom cas moom tey dibi la ñuy réeré moom. ah cas moom dibi lay réeré ndax cas moom waxoon na ko. yow xaalis bi lu ma defal ba yàq ko nan dem rek. waaw ah, lan laa def da ngaa jugee na dem man moom moom moo ko yàq fenn. te poche bi dafa bon de. soo yor ñëw soo yor ñëw soo yor ñëw. sama nijaay bay fépp. xam nga si dara. waaye kii bu banqué dafa doon wax ma jox ko xaalis moo gën muy def yii nii ne ah alaaji. Hmm? ah looy ma ci baaraam li mel ni Nadia Banaya. Hmm? ah lii moom rafetoon. ma ci ay baaraam ni maa ngi ci biir. maa ko damaa sonn. barki Rasuul laay dul baaxul si ma mun a fen baaxul si ma maa ngi ñàkk te dafa sedd guy maa ngi ñàkk ñàkk yu mit barki Rasuul laay kii moo dee wërsëg tas maay muy yaayam dee liggéey xam na yaayam moo liggéey borom ndekete li ñu wax ni ku yaayam liggéey boo ko buggee xañ reer soos ak ginaar lay teg tey lu raw soos lay lekk jël na vingt mille cinquante mille ci ay minute man zéro franc man zéro franc sottal xolam sottal xolam kii moom peut-être du ma jox sama xaalis saa yi nag fexal mu baar na baar gis nga seen colk yi moo yàq loo gis moo yàq kër xam xam nga ni bu la wóori ni lii boo ko solee doo ko def ci kër kilifa yi wala nga am na toogee xam nga ngegenaay du pour nëbb ngegenaay pour pour pour ngegenaay la ngegenaay pour teg su col ci loxo la ah nga jël si li col ko léegi après yii mooy xew ñu ne maam ja yéeg na ca kaw ah boros naa kay

kan kaw da nga febar kaw gisoo ma gisuma la ba tey ba ni nga toogee doon jàpp ni gisoo ma gisuma la lu waay bëgg tey day am wi sax ku ko bëgg paye boo nga ñëw toog waaw mis wi ku lu waay bëgg tey ma ma ma ma maa def loolu ah ah ah ah ah càttam waaw ma yow yaay sama sët ah mu ne mi ngi ñëw de mu ne mi ngi ñëw de moo ne mi ngi ñëw ne caat. maam nag Baara Mbaye nga ma tëggalagul boo a gis tëgg sama buy tëgg Baara Mbaye. fan rek fan nga mos a gis rek sama buy tëgg Baara Mbaye rek. yéen lan moo tax mënu ma leen jox heure rek gën ñëw heure. waaw léegi yow léegi yow tamit lan lan moo tax yow mënoo bàyyi nit ñi conscient waaye woote la ñu woowee. loolu la ñu woowee lu mbéeraay li tooy te neex. waaw mbéeraay ñu nga am suñu occupation war koo def fi nga taxaw suñu naan mbéeraay ak mbéeraay. toog leen rek jëru xuloo toog leen nu nu waxtaane ko rek. ku ne dem sa yoon ku ne nëppul. donc moom du ma ko def dama am yeneen occupation. dañoo am ci yeneen programme yu ñu nekk. temps dafa xaw a seer temps dafa seer lu bëri dañ ko jox mënoo woote yow nga ko ne attaqué. yow cas yow cas mënoo bàyyi sa bëri tiitar gi cas

incha allah ayca mooy séeréer toogal yi tamit damay dem aw jot. ah. toogal aw jot. parce que jot. aw ma picc mu laq saar day bëgg morom. jàppal duut ba ca kaw lal rek dajul. ah kon man man damay fay gaz bi. foo fay gaz jëm. foo fay gaz jëm. jugal ne damay dem. eh eh toogal toogal toogal toogal ñii ma jëkk leen fi di la attaque dangay ma ci biir mbaa nga dopp tiir waaw mais maa war a ëppale waaw yow bu pëlante wu ma nag ataay rek ngay def ataay kott ngay def kaw fii sa élevage nekk fii fii say nag nekkuñ fi ba nga nuy wóoli si guddi bi non dafa tàmm ci rek bi dem na ni la duul waxuma ak yow kay ak te xolam naqar na di wuy ma junni junni bi lii avance la ah Ndeye Aliou toog saf na paane. te bu bu bu baax sax. lii avance la. léegi xam nga lu ma bëgg tas. mooy joxal. ma teel la defal la ko si balaa réer. bu doon sambara yu bato. yow man maa ngi nekk ci une femme de ancien de gorose maa ngi ombal booy bi. waaw war a bu ju xale bi juddoo ma war a jëlee li ésic basique. ak ay toppala ba nga nekk fii naan ma jox ma junni. moom dafa xëy dafa fàttali ma defoon keroog. boo séeréer xëy Wah, moom laa koy wax ñun génn nañ jamonoy Marimar ak Sirdo bu yàgg. ñu ci temps 2022 xaw ma 2 oui ma xoolal dimbali leen ma ngeen commandé ma ngeen wax ma li ngeen bëgg a lekk tey. tey ma seen xon ba ngeen def leen may dara. waaw da ngeen di téen ko soos ak a ah loolu. lu ngeen bëgg tey am. Thiès wa Thiès sa mbuum yow sonn loo Touba. waaw yow yaa la la Mwen depas anan. Gite lò. Gite lò sipir. Lè lò kachan. Lè lò kachan. Mwen depas anan. Mwen depas anan. maam moom lañ peeral seen maam seen. <laughs> am na ñoo xam ne bu ñuy weddi xaru. man ngay waxal. Eh, li ngeen loo leen bëgg commandé leen ko léegi. Eh, booy xool. lu leen bëgg commandé leen. indil mbaam. ah ah. mbaam yan. ah mbaam nga wala mbaam xoo. Eh.

waaw moom waaw waaw moom fan la wax. ñeent tey ma xëy leen ngeen tool seen put bi. waaw xëy leen loolu la jar a wax doo boo tatti di di naay ne nii nga di ba may eh, la. Eh, nii nga di ba may la xam ñaar xamul kone dogal nayoo da tali. boo nayoon mel ni moom. yëf yi du eh, moom moom moom kaa xam ne li ma koy wax. séeréer waxuma ak yow de. man waxuma ak de. léegi moo fekk la foofu léegi

baax na ma suukar xanaa ñam lu woo xanaa ñam lu woo saf na wala saf na bu ñamal naa la saf na kay nee naa la saf na kay loolu baax na noonu ay bu ko sàppali bu ah. bu ko sàppali bu sunu mbeeraay di leen ko limité. waaw mbeeraay damaa bëgg mu am frontière ci diggante gaz bi ba diggante bi mu limité wu. ma ne leen ma kaas loolu premier dose. deuxième dose day wax na de léegi sa daanal bi nga daanal léegi. waaw ci boobu mooy wëcc joxaat joxaat ma wëcc. te te te te te te te te te te te te te te te baax voilà voilà. Ah, mooy moom ba léegi maa la gis nga wuti bii. bu la jox gis nga gis nga lii. lii rek lii rek mën naa foo. Eh, mën naa foo tamit. Ah, lii rek lii rek mën naa foo tamit lii xool mesure ko xool lii rek mën naa foo tamit lii xool gis nga. waaw yow doo woo ba tey sama xottu bi. ca ca ca ca maa dama lay expliqué ko waaye sa wëcc wi ni mu amee doole. xemeem sama xott yi de. xam nga. xemeem nga ma trop. pataas ma diggante yàlla dama xemeem. man billaahi wallaahi bëgg na ko.